ñëwal tourneel yaa mool nag xaw ma la lan waaye dama simmeeku ba dem simmeeku mu teg ma ci moto bi ma foog ne fu nekk la ma yóbbu xamal na la ma def yóbbu ma ba seen koñ jàdduloo ma ci mayga bi dugal ma mayga te man daanu ma woon lekk may go dama ko dama ko seexlu woon en fait parce que je me disais comme la fait ka soo duggee ni muy tilimee ak benn bool bi ñu toggal ci ñëpp man dama kaa seexlu woon. ba pare dama ci gën a metti mooy mu dugal ma ci mayga ba pare naan ma kii moo dàq lekk ci àdduna. ma xoolal moment yooyu xoolal may lekk nag mel na kuy lekk ay sax naan xool defe naa vidéo bi dugal na ko sax di lekk ba pare ñi mën woon naa yéen sa sa sa sa kii bi loolu dudun bi sedd la tombeloon sedd sedd la tombeloon dudun bi te yow boo fi gis nga boo fi ñëwaatee yow naan ma may léegi moom doxaan bi jeex na seen may ga dootuma dem daw ma may ga dégg yow da nga dem may ga di dem bante ya mais en tout cas boo bëggul dem tamit damay woo Adja Diallo rek wala ma woo benn kii Amina. waaw waaw léegi wool bi bich. taay bi bich wool bi bich. salaay bi tey coupé tu vois. mon bébé mon cœur mon cœur. salaay bi tey coupé dégg nga. lan la coupé dégg nga. Eh, dañ koy coupé bu ko coupé. yow xam nga ma je sais que ni may nii man instant je suis en train en train instant yi maa ngi lay maa lay fët fët yoo xam kuy ñëw ñu toppandoo ñi kuy kuy ñëw ñu toppandoo ñii <laughs> toppandoo ji ko xale yaa ngi doxalante ci ci commentaire yow <laughs> ba pare ñi nga ne ni dañ doon naan genre man maa mag kii magu ma ko. mag la ko. non non ànd. loolu li wax nii moom moomu mag moomu mag moomu mag. kii ak sama ñoo bokkoon classe. donc. je vais donner suñu date de naissance mais at naa wax moom 22 ans la man 24 ans la ay booy lañ. ay booy ndaw may gis ay magum jëmm di ñëw di siit di wax ay waxee yi waxatee ñoo som bari ñun de voilà Rakam la don andal. Rakam la bokkaloon classe mom la don andal. et tout et jusqu'à présent sax ñoy ànd c'est ça vous voyez léegi arrêtez avec ça s'il vous plaît en plus ñi nga ne comprendre Manaki man ak kii dafa yag. dañoo yag ta école ba ci manam je peux dire que ci loxom la donné li ma doon ci sama loxo la donné lim don. c'est ça ku ci nekk bien vrai que début bi ku ci nekk débuté nga sa côté mais fexe nañ ba construire ensemble fexe nañ ba ku ci nekk aussi nga am benn benn amélioration ci sa vie nga dem ba benn instant ba egg benn niveau bii nii mais musuñu nekkul genre affaire ay cadre ay niveau comme kii du niveau kii wala du niveau genre yooyu ki la yar man man bu ñuy wax côté niveau man je que ki nga xamante ne moo ma kooku foofu foofu noonu contraire bu ñuy xool peut-être na lu bëri ci sama vie. Là, j'ai beaucoup de choses en moi. parce que sama papa nekkatulee il a été un père pour moi nekk nag sama amul amul kersawu su ma defee dara def samay vidéo parfois ma dugal dara supprimer ko rapidement koo gisee su anormale directement daf may woo dindi di nga dugal et que man nekkuma aussi nit bu dëgër bopp su ma waxee loolu dama koy dindi ba pare nag waa tax ne ma dindi ko mu ne ma nii walla naa nii wala naa après yow da xam ne carrément que il a donc ni bu amul ci loolu noonu amul ci loolu vraiment ni bu amul ci jëleem bëgg na ma mat na ma papa mat na ma kilifa mat na ma borom kër mbëggeel bu propre moo ñu réunir du alal du taar du leneen amul propre parce que bi fi kenn nekkulee moom moo fi nekkoon bi fi kenn xaarulee parce que man déjà man dama naqadee nekkal

te <laughs> defe naa ne mais loolu la ñuy xool ci góor nañu waxante dëgg parce que tamit nit ki bu fekkee ne yor na ay milliards te maanaam mënu la yor yor bu rafet à quoi ça sert quand même so mënoo ko utiliser parce que xool bu neex moom mooy tax nga tal jël sa xaalis dem shopping ci defal ci sa bopp def ci lii def ci laa et que man bonheur boobu indil na ma ko sama dund nañu waxante dëgg kilifa la góor la jigéen di wër ci góor mat na ma kilifa mat na ma papa comprendre ngeen mi ngi may féete boo xamante ne ni comprendre na ma comprendre boo xamante ne ni kenn def ko kenn def ko am am kenn ku ma comprendre alquran sa jëkkër jaa ngi kenn xamul non ma xool waa bañ damay xool damay tib benn ku duma xool kot laa ciy def mbaa defoo ci di xaar dama ko daan vent ah, ah ba bu ma message dama koy sa

mais terewul moom il a toujours resté là boolewu ci benn wax moom daal toog na toog jàpp ñàmburam may dem di ñëw di dem mel ne mel ne xorondom ah muñ muñ na Jéema muñ. mais bi quand même. Jéema muñ mais tapate damay quitté de tapate leen xam di nettali pareegu ma. muñna mom vraiment muñna muñ muñ muñ ba période bi may def vidéo euh, bëgguma bëggante parce que mais loolu mo dé loolu mo déclencher affaire yi nak mu ñëw ma def buguma bëggante parce que man leen ni parfois mën naa nekk ci relation ma vent nit ki bàyyeeke naa ko bu yàgg te yëgu ko rek mu sama waay message ma damay ko nag ma bàyyi te yëguma ko <laughs> te torture pour vous montrer que je l'ai torturé parce que man déjà il est venu au moment où je croyais plus en l'amour parce que déjà je suis fragile côté sentiment je suis fragile dama suis un problème dama suis souffrir dama suis joy il y a trop de choses de j'ai perdu mon père je me disais dans ma tête man après et j'ai j'ai plus besoin de vivre loolu même si c'était pas vrai mais c'était quelque chose de psychologique en fait c'était psychologique parce que Papa, d'ailleurs au niveau comment ne merci mes bébés pour les cadeaux Rose tamit ah, cadeau papa mënatuma woon mënatuma woon supporter lu bëri jëlatuma woon risque nekk di bëgg nit mu bayek bàyyeeg ñuy bàyyanteeg may souffrir ci loolu ma toog sama ñaambur ku ma bëgg ya xam ku ma bëgg bàyyi. xale yi nee na yow lan moo nga dindi sa kaala bi ba pare nga nëbb leen sa boo en euh, comment dirais-je te pourtant ba ngay nekk célibataire dindi bi def comme vidéo yi ngay def actuellement nii. xam nga yi ma doon wax damaa ñaaw temps ñoo dama jabar. <laughs> non mais parce que da nga xam ne man damaa fii te boo ko dindee buñ la ginzee dama lay xam nga loolu moom xam na man damaa fii man su ma su ma bëggee énervé dañuy waxtaan ba ci yàgg mu ne ma ñu ne alalu sëñ Touba lañ nu alal gi di soxna yi di bëri rek ñu xuloo doyal bu ko koy wax may doyal ci waxtaan non man man mom, man mom, pour ngeen xam ko man mom, benn jabar rek te xam naa ni sax xam naa ni sax à part à part Adja Diallo nii nga xamante ni maa ngi xalaat kii ko nii. tey ngaa xalaat da ngay da ngay après da ngay coupé. non non waxuma waxuma kii de ma ne kii. Ayda tey nga xalaat ne après live bi day coupé. ma ne jigéen bu baax la quoi. ah Aya Diallo ma ne. c'est que bi continuer Adja Diallo ci Adja Diallo. non ne man man benn jabar man man moom xoolal benn jabar man ku ma xam-xam man waaw. à part Adja Diallo Adja à part à part man su man. ma bu laa bu coupé bu ma woo de. Ah? non pourtant pourtant suul dama ne yow. ak kii dañ doon live non dama doon kii rek nii nii nii nii. xam nga yow dèjà may kókkale. non ma ne yow Adja Diallo da ngeen a da ngeen a eh, eh, maak moom xam nga loolu et tout léegi nag si tu veux Si tu veux, réveiller les volcans. Vas-y, réveille. En tout cas, je te dis une chose. lu vous waxoon dina ci dellu te ci live la ñu nekk te boo paree da live C'est pour couper la live bi man ak yow ñoo ciy des léegi kenn di dit quelqu'un du fi non ma ne Adja Diallo à part Adja Diallo. yow xoolal waa gën a suñu boobu waa léegi nañu a suñu léegi yow lan moo tax lan moo tax Fatou Fatou bi. ak ak du yàgg daal mu xam naa loolu. à part Adja Diallo kii ak Tatira. sama yoon Tati non Tatira sama la Tatira moom.

Ouais, d'accord. je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu vois, mais je t'aime trop. Je t'aime énormément. Je t'aime, euh, comment dirais-je, à un point. Bon, après, tu nous Hein? Tu vois, si tu après, tu me redis ça sur Snap. Après, on va en discuter. Ça te va? Hein? À quoi? À quoi, Babel? Ça te va? Man, maintenant la, ça, voilà man sax maman mais on va ça on va on va en reparler ah. ça te va <laughs> Amilaya d'accord Amilaya Adja Diallo euh, tout ce que tu veux dégg instant ngi xulli on va en parler damay amiin après day am ñetti tur dégg nga Serigne Touba Baye Niass ak Mouhamed. waaw mais loolu léegi dañuy xool léegi ñaata lañuy def. pour man man amul problème de gis nga man nii. man su ma tuddee yonent bi nii. waaw tuddee Serigne Touba ak Baye Niass. ak Boukounta Ndiassane nii. su ma tuddee après sama yaay sama papa tuddee sa yaay sa papa nii. ah tuddee Baba sama xarit. xam nga moom mënu ma ko bañ a tuddee. mais tuddee naa sëñ Tuubaa pare ba tuddee waat la wala. waaw dinaa dinaa dinaa nen ne ma tuddee ko. ah. suñ premier njëkk bi mënu ma ko bañ ci Xaadim Mbaye. ah deuxième njëkk bi faa ma tuddee ko non papa Oudou wax naa ko. Oh, oh, ah après wax naa yaa ma papaam. soxna soxna jaara Bousso moom li mu defal li mu def ci àdduna xam kooku mënuñ koo bañ a ñaata nga compté gum. 14 bu ñu compté. xoolal xoolal ma lay. waaw waaw expliquer kay expliquer rek. monseigneur Benjamin Ndiaye. kooku li mu def ci jàngu ah. te yàlla insa kooku faaw ñu tuddee ko dog ah Sadio Mané tonton Sadio. kooku mu ma ko bañ a tuddee doom mm-hmm. bu moo jee sama xarit bi ah sama manager bu baax bi Abdoulo kooku mënu ma ko bañ a tuddee doom kooku sañu ma ko sax ah Ibro Naajo sama xarit bi bu moo jee ak kan Serigne Thial Diomaye Sonko noonu muy maa leen Cheikh Mouhamadou Samba Diallo yaa ngi ci 24. ah waa mais loolu baax de. loolu kay xam naa ne si tegaatee su si tegaatee Nelson Mandela rek ak Thomas Sankara. 25 26. Poutine mii nga xamante ne si dëkkam bii laa ne te indil mu benn problème. à soeur bu ma neexee dugg heure bu ma neexee génn. 27. pardon j'ai pas signé pour ça. waa xaaral ñu arrosé ko rek. xam naa ne on annule pour ça. non non dañ koy waxtaanee. on annule on annule tous les quelqu'un man j'ai pas signé pour ça. eh eh eh. taay fii damay wax ak yow. yow déjà eh. jarul ngay togg toggul kaa fi ma wax ak yow déjà Baye Niass moom c'est obligatoire mais man man maa si ñëwul 27 si ñëwuma ko yaa may dégg man je le dis devant tous les quelqu'un bu yeboo nga jël say doom benn bu ci nekk na am na am 10 tours. mais léegi xam nga ma je suis une poule pondeuse wala lan. non dama la bëgg a wax maanaam yow xam naa ni man du ma ne damay tuddee Baye Niass nga ne ma déedéet sëñ Touba moom sañoo ko bañ sa yaay mënu ma wala mënu ma ne da ngaa bañ sa moom da nga ko bëgg kooku koo bañ sama yaay su ma nee dama koy tuddee doom yow da nga naan kooku dama ci sawar sama papa ma teel dem da nga naan kii dama bëggoon fekk ko ci àdduna di ko di ko di ko toppatoo xam naa ne xam naa ay Bachir KMB sax mën nga koo afu aju mais Limamou Laye doo ko bàyyi Limamou Laye li mu def ci Sénégal dugal na sama góor gi doom nga ne yaa bañ joomaay nag joomaay joomaay li mu def ci réew Sonko nag li mu xanaa Sonko du ma ne dama ko tuddee nga ne yaa bañ euh, taxawal je fais damay def annonce Ah. su fekkee na am na kenn koo xam ne nii man mën naa ñëw mu continuer contrat bi man Janib. waaw mu toll man. merci Roger mon ami. le grand patriote wax naa ko kii ma ne ko Sonko il faut ma tuddee ko.